kilifa gii di wax ne euh, nañu leen fal nit ku ragal yàlla France bëggul loolu France nit ku ragal France la bëgg ñu fal ko ñi fi wax ne ku falu ñoo la fal fala fi ku fi taxawal yàlla te dañ koy damoo xanaa lu nit yëccëral ba yàccaaral mën a fal Senghor <laughs> gëmut yàlla <laughs> yaa ngi dégg am tubaab la nee bu ma ñuulee ci kër sama xol dafa weex ci biir ah? tubaab bi bëggul ñuy fal ko ku ragal yàlla li muy bañ a dégg ilaa ilaha illallah noonu la bañ ñu fal ko ragal yàlla tubaab bi li bëgg mooy ñu fal ko ragal tubaab bi koo xam ne sax buy def discours bu bu buy wax li ko gën a ñor da koy lakk ci tubaab ndax naa maa ngi nii de li may wax dégg ngeen ko waaw ma dara loowu leen arrangé wul waaw waaw waaw day wax li muy wax ci tubaab ba noppi na door ko wax ci làkku réew mi ngir lan ngir bàyyi tubaab déglu ma de foog ma tracé lan foofa laa nekk de la ma doon wax loo ba léegi loola laay wax waaw te ma te te te te ñi ma koo wax directement ci tukulóor mbaa ci olof ndax boo waxee directement ci tukulóor mbaa ci wolof boo demee ci baay tubaab baay tubaab na ko lu ma la waxoon dama laa waxoon ba wax ci soxla ko ci samaw làkk soo ci boolee lu lu lu dul yoon boo dikkee mën a dindi li lii bokku ci del wax samaw làkk laa la wax nii ndax mais saa nekk fi imposé ma saw làkk ba jóge fi dem bitim réew ne ma continuer ci samaw làkk ndax nekkatuma fi waaye dama fee bëgg a nekk te newuma fi lépp lay wax te mu ñor wax ko ci samaw làkk ngir ma xam li ngay wax te moomuma la waaye la moom waaye maalam moom dafa man dafa xam ne yii dama koy junju <laughs> mais mënu ma koy eggale ndax man kat borom tànk yi damm yi ak borom pakki taas yi li ñu nettali moom wuu loolu moom fa la alhamdu ñu ko ne yo man waaye màggat ñi mënuñu ko ginnaaw yàlla gamo nga fi ne moom firaaw num nu <laughs> diggante firaaw nag Muusa sax daw waaye nanu fal ko ragal yàlla ku ragal yaay fal ko ragal yàlla waaw ñoo ko te nag ku ragal yàlla yaay far ku ragal yàlla kulla isbin bi mala di li nekk fii ku ci ànd yaag ñoom benn ngeen donte da nga tuddoo diine anil mar'i la tas'al fasal an qarini fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi la naari di wax anil mar'i la tas'al fasal an qarini i fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi loolu naar yi di wax nit jërta laaj laajal ka muy àndal rek nit ku nekk ab xaritam ñoo bokk jikko ñii fale ak ñii falu mburu foofu mburoog miskit foofu ko fëriñ lañu ñoo yam képp waaw neexute dégg nag ñii fale ak ñii falu ñoo bokk diine ñoo bokk pas-pas li leen ci réew mi loolu la ñuy tëral man wax guma ndax man dama dama freiné wu xam nga man bokkuma Pastef bokkuma fenn ndax man dama xasoon a bokk ci eh, parti bi ñuy wax Nasru ba noppi te man eh, musuma bokk ci parti lu dul bi Nasru jógee ma bokk ci Nasru te man ni ngeen may gis nii ak miin dee la su ma la xasee na waaw yow yaay wax déedéet de waaye nag soo jógee ma jóg taxaw ba sonn te demoo ma tëdd ba saa yoo déparé ma topp ci yow ndax mënumaa ànd ak ko taxaw teñ ñu war a dem moo tax ma toog waaye man ci nasru laa bokk nasru doxagut nag moo tax doxuma bis bu nasru danaa dox ndax man jàpp bàyyi du suma jikkoo waaw man ma soutenir nag Ousmane Sonko wateel ko ndax lii ma gis xamuma ko ginnaaw nag say bi takk nañ ko te attanaguma ko sama doole mayaguma ko yenu ku bëgg yenu say wi dinaa la jay di nga yenu ko ndax loolu moo di ngor ginnaaw say wi dem rek lañ bëgg wante euh, man waxaguma ci lii ngeen di wax Abdou Khadir li ngeen wax nii waxaguma ci de man ke joomi naa damaa joomi ku joomi joomee da naan pat waaye man Cheikh gi ku ma noon nit ñaa ngi dund lii ci Sénégal gii man xam naa ne aw ma farasatul mu'min waaye xaw li farasa waale amaale naa ko ndax buñ waxee ma ne wuu man damaa ragal man kay moom lu bàyyi mbokki wax rek way waaw waaw est-ce que ça way est que c'est way man kay amuloo ma dul way monsieur way rek way monsieur <laughs> dama ko daa war nit ñi di ma reetaan léegi gis ngeen tax ma di ko wax waaw ginnaaw ko niwul way da nga ne wóoy kay ne leen way rek ba ba ñuy mën a wax ne leen way rek moo gën ku fi newul way da nga ne wóoy de sëñ sax Mbàkke Gaynde Fatma waxam du guddee sax Mbàkke Gaynde Fatma bañu fiy samp Senghor mu di fi indi laïcité ñu daaneel Lamine Gueye daaneel du jaa samp Senghor naan way way way sax ñiñ sax Mbàkke daf ne képp ku ne way da nga ne wooy wooy ki nekk nii nag fi mu ne nii nag moom nekkatul benn wooy wooy wooy wooy woy léegi kay wooy wooy fépp la daj Mbàkke ngay defaat ma xamoon naa ne sa wax du guddee da ngeen ne da ngeen ne wooy ba yegg ci wooy yaa yooyu te du sax ngeen am li ngeen bëgg ndax fa ngeen waroon a jaar jaaru leen fa te si sax Mbàkke ngay defaat ma noon na fal ngeen Senghor de samp na laïcité daane diine waaye képp ku ne way digga ne wooy wóoy wooy jooju nag man duma ci bokk man kay damay seng yaay nekk ca périphérie ba rek man kenn du ma damm waaw talu ma ñu di damm ak di ma futti dima ma dóori yet di ma xëpp ay ay ay ay diluant xëpp ay ay ay di ma dagg di seeyal ci ay barigo loolu man Cheikh Gueye taluma loolu man sama ruu gi dama ci jaamu ji yàlla suñu borom waaye nag sunu mbaay yee dañ noon way waaw Serigne Cheikh Mbacke noonu nag ku ne way rek da nga ne wooy